allahu akbar mbokk yi nañu newaat alhamdulilah sant yàlla te góorgóorlu suba insha allahu taala suba mooy mardi juin déglul bu baax 27 juin 2023 moom mooy mooy bésu arafa allahu akbar suba mooy arafa kon ginnaaw suba mercredi 28 juin mooy mooy premier jour tabaski kon tabaski mercredi la bi idnillahi taala bésu alarba alarba bii di ñëw ginnaaw suba moom mooy mooy tabaski suba moom mooy arafa allahu akbar suba mooy arafa mooy neuvième jour ci weeru dul hijja 1444 hijri lan lañ ci war a def mooy dañ cee war a woor woor ku ci woor looy am déglu lu baax de abu ayub al ansaari saxaaba bu tedd bi radiallahu anhu saabat ajmain mooy nettali mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko laaj ne ko yonent bi saa sallam lan moo nekk ci mooy woor li nga xam mooy bésu arafa mu ne yàlla dana ciy jéggal bàkkaaru ñaari at mooy asanal maadiya mooy daaw ak l'année en ñaari at yi bàkkaaru ñaari at yàlla la koy jéggal yàlla na yàlla jéggal ñu dugal ñu aljanna mbokk yi buñ naree am mujj mu ñaaw bàkkaar a ko waral mbugalu bàmmeel bàkkaar a ko waral mbugal bés penc ba safara bàkkaar a ko waral yàlla jéggal la say bàkkaar ñaari at allahu akbar ki perte mooy ki xam li yàlla may ko occasion promotion tiyaaba yi leer yi romb ci kanamam tey subhanallah benn jour nga woor ko yàlla yërëm la ci yëkkatil la daraja jéggal la say bàkkaar dugal la aljanna musal safara allahu akbar lan lañ ciy wax mooy ñaan bi gën ci ñaan ñuy wax bésu arafa wird bu gën ci wird yi yonent bi sallallahu alayhi wax nee na xadis be sàng muslim moo ko solo mais bii tirmidi rahmatullahi nee na xayru maa qultu ana wa nabiyuuna min qabli li gën li ma wax man ak yonent yi ma jiitu woon yépp alayhim salaatu salaam mooy laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shayin qadir kon na nga répété lii di ko répété allahu akbar yàlla da ciy nangu ñaan wirde bi la ñu yonent bi jàngal sallallahu alayhi wasallam kon bul ne gis naa wirde bee ci facebook wala nee nañ mi sëriñ bi déedéet yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mu la jox mooy laa ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu lmulk wa lahu lhamdu ala kulli shay'in qadir boo mënee ñaan yeneen ñaan bismillah mais na bii nekk fondement bi nekk au début au milieu à fin yàlla da ciy jéggale ay bàkkaar subhanahu wa taala di bari lu ñu ciy tudd yàlla allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar alhamdu profito di ci ñaan yàlla da ciy baale da ciy nangu ay ñaan aussi nit yàlla yi saxaaba yi salaf dañ wax naan yor nañ ay ñaan yoo xam dañ ko daan denc ba bésu arafa ñaan ko ndax yàlla ciy nangu ñaan yàlla na yàlla nangul ñi dafaral ñu jàmm àdduna ak àllaaxira def jàmm Sénégal ak fépp amin yaa rabbi